salaamaaleykum mbokk yi tey nag dañoo seet ci ko xam ne kenn la ci ñun muy kan Ameth Jackson Ameth Jackson yaakaar na waxuma la Sénégal mais duñ ko présenté àdduna yëpp xam nañ ko tey moom lañ seet ci tey war a waxtaan ak moom ci showbiz war a waxtaan ak moom ci Sénégal ah di waaj nag loo xam ne bés bu màgg la fële ca Genève bés bu rëy muy le 26 muy sargal Lions yi sargal jigéenu Genève Ameth lañ dalal tey. waa asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ah, maa ngi nuyu nag tey moom dama kontaan ndax suma rakk daf ma seet si hmm. eh, ma am mbégte nag bu baax ñu yàgg loolu nag ah hmm. ngay doomu ndey buus ñu ñaanal buus yàlla na ko yàlla defal jàmm yëkkati ko hmm. ci daraja Seydina Muhammad àdduna loolu la àdduna moom wér la ak wéradi sunu borom bu la ko tegee rek yàlla na ko teggi may nuyu nag jigéen ñi Sénégal yëpp rawatina nag xale yu Jeref. leen nuyu di leen ziar di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp. di xaar nag say question aca suma macha allah comme li nga wax rek mais tey di bés boo xam ne yaakaar na euh, waxuma la faramaaren mais képp kuy Sénégal tey sa bés bi tey dem na ci Papa Thione tey muy macha allah monument Sénégal euh, référence de Sénégal lépp tey mu dem wuyu ji suñu borom tey bàyyi ñu fi tey ñu ay njabootam di léppam mu xam ku ne Thione ne Ameth Thiou ku ne ametu ne waali hmm. tey lan nga yëg ci bés tey Papa Thione waaw waaw sant yàlla rek xam nga tey moom bis la boo xam ne bis bu tiis la parce que nag coon moom dafa am lu mu def ci ñun lu bari <laughs> ndax ci wàllu waxuma la wàllu liggéey bi rek mais ci diine gi <laughs> surtout dafa def ci ñun ci diine lu bari Thione yedd na ndaw ñi <laughs> yedd mag ñi yedd jigéen ñi Thione Seck tax na xale bu jigéen bu doon def na ko sudul noonu mhm. boo dégloo woyam bàyyi nga ko dëgg la bu jigéen bu doon def doon taxawaalu boo dégloo ay woyam bàyyi nga taxawaalu mhm. xale bu jigéen bu doon sàggane sëyam boo dégloo ay kàddoom ci ay woyam bàyyi nga ko mhm. góor bu doon naan sàngara wala nga def naka su dul noonu boo dégloo ay woyam bàyyi nga ko góor bu fañaagoon nekk ndaw boo dégloo ay woyam di nga doon góor yàlla. doon mhm. liggéeykat. Mhm. alors woyam yu bari yow di nga ci bàyyi xel. Mhm. keneen ak keneen dina ci bàyyi xel. balaa nga xam lu sa baay daan daj nga dem ba màgg njaboot gi wér la. loolu rek bu ko yàlla fayee ci yiw ci loolu. rek yaakaar naa ni suñu xel dina dal ci moom. waaw mu nekk koo xam ne ku jëriñ réewam la. waaw ku jëriñ réewam la ba dem. Thione Seck daal euh, man bëgguma sax ñu may wax ni tey la am ñaari fan wala ñetti fan wala tey la am at man bëggumay dégg loolu nan ma bàyyi rek ak sama mm-hmm. kumpa ak moom nañ ma bàyyi ak sama kumpa moom kon xam naa foofu la ñu dàgg ci Papa Thione parce que buñ ci sore rek xol yi day tooy tey euh, muy rek euh, jëmm joo xam ne jëmm ji dem na mais jëf ji ak li mu doon liggéey yëpp mu ngi fi te du mës a fay benn yoon loo Thione moom ay mbiram du mës a fay ndax alaaji seexay baayam ndeysaan ajaratu Ndogoy mooy yaayam mm-hmm. mu doon nit ku am kersa mm-hmm. doon nit ku yaru doon nit koo xam ne ku yar ay doomam lan mm-hmm. ci diine coon lu mu am jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa jox na ko yonent bi doomam yépp Seydina Mohamed la leen tuddee wala waa kër Seydina Mohamed ndeysaan kon ak saxaaba yi kon coon Seck xel dal na ci moom ndax yonent bi am na lum ñu wax ci ku ma tuddee doom rawatina nag nga tuddee ko doom tuddee ay saxaaba mm-hmm. tuddee ay wax këram këram njabootam waaw kon cofeel la moom ci yonent bi lu wér la mm-hmm. Sénégal amel ko njukkal bu rëy boo xam ne dañ ko war di ñaanal fu nu toll mm-hmm. waxuma sax par par weer wala par at chaque jour dañ ko war di ñaanal ku toog ci sidaara war ko ñaanal waaw ku toog ci sidaara da nga war a ñaanal Thione Seck ndax li mu def ci réew mi yàlla na ko yàlla gën a yërëm amin na ko sunu boroom gën dugal ci àjjana yi gën a kawe amin amin yàlla na coon am pale amin yaa rabbi amin biir àjjana ndeysaan ci darajay Seydina Mohamed man li mu def ci man daa bëri mhm. sama xarit la nag waaw loolu moom yaakaar naa sama xarit la ci wàllu aar mhm. waali boo ko laajee sax danaan non dëj bi danaan man duma ko wax Ameth Thiou du ma ko annoncé Ameth Thiou papam gaañoo dafa ne du parce que man coon man la mujjee waxal téléphone oh. waaw eh, teguñ ci ay ñaari waxtu mu génn àdduna allahu akbar fi ndee baay noonu eh, boo ko laajee daan kenn ñàkkul Ameth Thiou moo ñàkk <laughs> dëgg la ndax Ameth Thiou dafa bëgg sama papa sama papa bëgg ko ñu dem ba nduroo. bëggante walaay dëgg la moom loolu la ba ci colin sax dëgg la. macha allah si bi waaw coon moom. mi ngi noonu sam papa ak alaaji junjaay roos mhm. ak ñoom paawee seng seng yàlla na ko yàlla yërëm xaar leen àjjana amin waay papaay mbay gay fay mhm. moom ak sama papa ñoo bokk génération ñooñu ñoom moo doon wax ci coon mhm. sama papa doon wax naan coon génération moo ci gënoon civilisé dëgg la moo ci gënoon civilisé ëpp leen kàddu dëgg la gën leen a yaru ëpp leen fit ëpp leen ngor dëgg la wallaahi papa moo doon wax loolu. ndeysaan ne ma coon ñun mag ñi ñun ñëpp ko bëggoon. Mm-hmm. ba pare ne ma ndaw ñi bëgg ko. ci mm-hmm. koom. E, jigéen ñi ñu mag ñi ak ñu ndaw ñëpp bëgg ko. bëgg ko ndeysaan ñëpp naan papa coon. papa coon dëgg la wallaahi ak bëri doom ñun ñii mën nañ koo jur. Mm-hmm. sama papa loolu la ma doon wax. ne ma xale bu yàlla baaxal la. waaw yàlla teral. waaw. te it ku yàlla teral la. jox cër jox ko cër Mm-hmm. kon coon yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana mm-hmm. ñàkk nañ ko doy waar ñàkk nañ ko doy waar ku yéeme ñàkk nañ koo xam ne beneen affaire la waaw coon sekk beneen affaire la boo gisee ni mu demee rek nga xam ne waaw mm-hmm. kon nag nanu sant yàlla man nag bi mu génnee àdduna pour man sax fële leen koy yóbbu Touba. ba xaw naa ci kii waaye pour wax la ne mag ñi am nañ ci moom cofeel ay mbir la bàyyi ko jël ay <laughs> lu ñu ñu bëri xam ne waaw bàyyi laay ko jël wallaahi wane nii mm-hmm. loolu moo lay wan ni suñu mag ñu baax ñi ñoom ñëpp ñoo bokk lépp wallaahi am nañ cër bu baax ku ne dañ koy bëgg a aar waaw ndeysaan kon coon yàlla na ko yàlla yërëm taxaar amin waay amin day def mm-hmm. ndeysaan buñ ci naree sore rek dañ ci dañ ci yu <laughs> tey euh, papa coon dem bàyyi fi ki nga xam ne yaakaar naa euh, deretam la léppam la sa rakk la mm. tey muy Wally Ballago sekk parce que mm. tey émission bi mm. buñ ci soree rek yaakaar naa du kii dañuy wax rek bref dem ci Genève yaakaar naa bàyyi fi loo xam ne xale la deretam la lépp tey muy Wally Ballago Seck di sa rakk di sa doom man dama naan sa rakk sa doom ah, ku la déggal ku la jox cër parce que damay fekkee lu bari wax dëgg yàlla tey coon bi mu demee léegi un avant un yi sax six mois ñu yëg loo xam ne teg ci deruwaay loo xam ne mosuñu koo teg ci deram bi papaam di dund tey loolu na laa def avant tout bala ñu waaw euh, xam nga ñi bëggul moom àdduna du neex ba nu bëgg. <laughs> mais mën nga ñàkk mën nga ñàkk bëgg. Ah. te doo wax lu bon. mais àdduna lool la fii lañ ko fekk. waali Seydina Mohamed a ko gën. Mhm. moo gën waajuram. dëgg la moo gën sama waajur moo gën sa waajur. mais Seydina Mohamed li mu àttan waali attanu ko. non non mais exemple rek laa mhm. wax. xam nga jullit moom ñun exemple la ñuy jël ci yéen. Mhm. yàlla daf ñu wàccale yonent bi pour ñu jël ci moom exemple. segam mhm. euh, gën di mbindeef. sallallahu moo gën ci mbindeef yi. moo gën suma baay moo gën suma yaay moo gën sa baay moo gën sa yaay moo gën ñëpp. segam ñooñu la doomu aadama am fit doon ko wax ti na ñun ñii nga xam ne nag ay nitu simple lan rek. fallait que mu dékku parce que doomi Thione Seck la. waaw mhm. ah, lu lu wax nga lu garaaw. waaw ah, bu dul woon fale ko mu déggu. waaw parce que doomi Thione Seck la bu dul woon doomi Thione Seck. du mhm. demee noonu xam nga affaire bi xalaatuñu woon ni coonay jur ki yor Keur Musique Sénégal. dëgg la xalaat kenn xalaatu ko ci àdduna nag ko feneen lay judd. wallaahi azim. léegi nag comme que yàlla def na Thione Seck moo jur Wally c'est Wally Thione fale ko muy dégg. bàyyam li mu daj ci musique Wally daju ko de. Wally daju ko xaaj na sax dajul xaaj dëgg la bu bëri fekk nañu ci ay wax rek lañ koy waxal. mais coono ko doon xam nga jamono yu njëkk yi nit ñi dañ doon jëf. jëf ngay gis boobu wax waxukaay sax bëreegul. wax dund sax wax. dañuy ñëw jëf parce que booba nit ñi amoon nañ kersa. Mhm. yar woon nañ. ba pare réseaux yi bëriwuloon. waaw ah, non ba pare dañoo yar woon. sax mhm. quoi. yar dafa amoon waaw ah, magu démb yi. jamono jooju nit mhm. ñi dañoo yar woon.